tawat yal na yàlla saafara la ku mu dalul yàlla ci yàlla musal te yàlla na ku jullit bu yàlla nga teere ji àjjana ci barke sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, li ci lépp lu ci waaye laxasit ci ay pexe pexe yooyu yu yooyu yàlla bu mu sotti ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko koy fexe it yàlla ko yàlla jaaxal ba dootu tal pexe yooyu ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla def jàmm ci sunu réew mi def jàmm ci sunu réew yàlla yàlla def xol yi jàmm ci ne ñu yéenante jàmm kenn ku ci nekk boo ko mënee bisu nangu ñaan lañu nekk nañu def ayatul kursi 313 bu ñu paree ñu def astaghfirullah euh, def ci boobu suñu paree ñu def ci yaa salaam junni ak téeméer ak fukk ak benn téeméer salaatu ala nabi bu ko defee ñu ñaan ko ci réew mi eh, fi nekk nit ñaa ngi déglu ñaa seetaan waaye eh, politiciens yi fooy suñu réew mi de waaw ñu seetaan rek sëriñ si nitu diine yi dama ne nag réew moo xam ni quatre-vingt-quinze pour yépp ay jullit lañu jullit yooyu fexewuñu ba réew ma kilifa diine ya fa ne la ñuy ci réew ma seen loxo dem ci ñu ngi nelaw ñu nelaw dëkk moo tax yàlla du seetaan nag seetaan parce que loolu nag dafa mooy yarumaane quatre vingt dix sept pour cent la ñuy wax léegi mooy le pourcentage des musulmans dans ce pays ña fa représenté diine ji pour ñoo fexe ba bokk kàddu di am di di di am seen baat ci biir réew sëñ bi lu ñu ñoo ko teg suñu bopp dañu yàlla nag moom ah ñaan yàlla rek yàlla moom moom ku ko waaye day dañoo lu mën a tax nag vraiment lu bari muy waaye nëgë ni waroon na fekk tey jii yenn yu bari lu ñu doxal ci réew mi parce que bu fekkee ni yow réew moo xamante ni jël sa doole doole jox jël sa santé jël sa alal jox nit jël sa kàddu jox nit te nit kooku amul fenn foo ko niwul teel sa waxu fi mais kooku c'est catastrophique dans dans un pays te loolu moo xam yàlla loolu nag mooy njëkk kilifa diine yi war nañu am benn baat ci réew mi di mën a influence ci décision yi nga xam ne mooy xew ci biir réew loolu yàlla na ko yàlla defal te yàlla nañu yàlla defal kilifa diine nag yu jub yu jub yu yàlla te doog di leen tax di def yàlla nañu ko yàlla defal ci réew mi ndax loolu rek mën a tax suñu situation bi mën nañ waaw yàlla nañu ko yàlla defal moo ko def ñaan boobu nag ñëpp def ayatul kursi trois cent treize bu ci kenn xel sa bopp ñaan bi ci kenn xasoo bari na ku nag yàlla yàlla yàlla situation boobu réglé benn waaye boo xamante ni moo toog ci boo xam def la muy def yàlla na mu ñaan sauver tout un peuple kon ku kenn kenn ku ci nekk ayatul kursi trois cent treize astaghfirullah mille neuf cent quarante sept salaam mille cent onze salaatu ala nabi téeméer cent bu ci kenn xett ko da ko ñëpp ñaan ci réew ñaan yàlla yàlla na yàlla jële fi mbas mi ñaan yàlla fitna bii nekk yàlla ko yàlla teggi te lii jaxasoo ci xel yi yàlla moo xam dëkk yàlla na yàlla dooleel dëkk tamay ñu jàmm yàlla na yàlla dooleel dëkk tamay ñu jàmm kenn ku ci nekk nga am yéene boobu te yàlla defal ñu jàmm def ko ci suñu ci barke Seydina Muhammad te jubal suñu njiiti diine yàlla dimbali ba gis ñu bokk kat ñëpp nit ci yéene la bokk ndax loolu rek moo mën a defar suñu situation réew parce que kenn ku ci nekk toog ci sa bopp di di di say say say problème loolu defar diine ji ñi ko bokk war nañ ko mën a bokk ñoo bokk yàlla ji bokk Seydina Muhammad war nañ bokk genn kàddu di décider doo di di di di di yëkkatidoo loolu war naa mën a nekk su nekkul suñu bakk na ci ne waaw segam nitu diine nag moom la bakkanam yilif ba mënta ànd kon keneen waxi loolu mooy suñu problème yàlla ñu yàlla yàlla na yàlla yërëmal ñu suñuy way dawlu sa teg ñu siraatal mustaqim yal na yàlla eh, defal ñu suñu ngor yàlla may ñu defal suñu diine defal suñu ngor defal suñu suñu àddu defal suñu alaxira ci barke sidna muhammad salallahu alayhi wa sallam yal na yàlla ñu ngi nekkoon ci wàllu julli doon ci wax ci julli mbooloo eh, yonent bi nee na man tawattaa wa man tawattaa wuduahu wa asbahu nee na képp koo xam ni jàpp nga jàpp mu set jàpp mu sell jàpp mu mat eh, nee na nga jàppoogu sa kër nee na su ma yatil masjid sa su ma yatil masjida wala yuridu illa salata fii mu dem ca jàkk ja te lenn yóbboogu fa dul dem julli ji joxe farataam nee na illa tabashbasha allahu ilayhi kama yatabashbashu al ahlul ghaibi bi talaati nee na lu dul yàlla dina bég ba muuñ nee ni nga xam ni nit koo xam ni mbokkam wala xaritam bu nekkoon bitim réew yàgg fa lool xamul ci lu mu nekk bis rek mu ñëw rek daal di fay nee na loolu muy bëggee nga am sa mbokk wala sa doom wala sa papa mu nekk ci àll bi xamul fa nekk bu bis rek mu ni tël ngay am nee ki jàppoo ci këram wut ci jàkka ja jàpp mu set moo tax loolu moom xadis boobu war naa tax kenn ku ci rek bala ngay dem jàkka jàpp waaw nee na boo yegsee nee na yàlla day bég ba muuñ ci yow maanaam tey jii ñun yàlla bég na ci ñun ba muuñ yàlla ko yàlla xol nee na lu ko nee na googu nan la mel nee day mel ni yow nga amoon sa mbokk mu nekk àll nekk fu lu yàgg yàgg xamoo ci lu mu nekk waaw ba nga yaakaar sax faatu bis rek mu tëll ci sa kanam xam nga loolu neex na lool ci xol nag noonu nit ka di bëggee ni la yàlla yi bëggee ci jàpp jàppoo këram ñëw ci jàkka ji dara yóbbu bu dul joxe farataam yàlla na ko yàlla defal salaamaaleykum wa rahmatullah